au règlement intérieur effectivement donc de l'ordre des avocats. Et d'ailleurs, en fait, c'est au de l'article 26-2 en fait, du règlement en fait de l'ordre des avocats qui me permet en fait de se prononcer au sortir même d'une audience publique alors donc loolu mooy li am donc wax jooju wax la joo xam ne nii maa ngi ko yëgee comme ni ko ñëpp yëgee rek xëy fekk sama photo à la une des échos ñu ni maître Abdinaar Ndiaye dañ ko traduit devant le conseil de discipline il n'en est absolument rien je n'ai jamais été effectivement donc convoqué par une quelconque en tout cas instance en fait disciplinaire en fait donc donc loolu wax jooju c'est au fins de me sataniser aux fins de jeter l'anathème sur ma personne or moi je un homme en fait respectueux comme je vous dit des lois et règlements de cette république et je me conformerai en fait jusqu'au dernier souffle à effectivement donc aux textes et lois qui nous régissent Euh, bon, je vais effectivement saisir le bâtonnier de l'ordre des, de des, avocats aujourd'hui même, en fait, donc pour en et me scandaliser, comme je lui montre, comme je, suis, je, je, je suis scandalisé par cette information, en fait, donc qui glande autour et euh, donc sur la, dans, la presse. Mhm. Mhm. Mhm. waaw en fait tey effectivement lan waaja waajaloon en fait euh, procès bi ñuy wax procès Euh, Khaliphone Sall contre Adja Thiaré Diaw mais gis ngeen bu baax ni euh, l'affaire a été évoquée par le tribunal d'instance hors classe de Dakar mais en fait nous nous avons effectivement estimé devoir en fait donc solliciter le renvoi de cette affaire pour la bonne et simple raison en fait donc notre cliente est toujours alitée suite effectivement aux coups et blessures que lui aurait infligé le sire effectivement Khaliphone en conséquence en fait l'autre partie en fait donc de défenderesse a estimé devoir solliciter une mesure de mise en mais le tribunal souverainement a décidé en fait donc de la rejeter purement et simplement au motif que ce dernier, au regard effectivement de la gravité des faits de l'espèce et au regard de l'absence de, garantie de représentation, a jugé tout simplement de renvoyer, de rejeter la demande, de le maintenir dans les liens de la en donc de prison et de la prévention et éventuellement euh, programmer son audience pour l'audience du 6 Inch'Allah. waaw li mu koy fait boo xoolee le le parquet a procédé a un règlement xam nga nit ki bu fekkee dañu dañu dañu dañu porte plainte maanaam parquet moom mu am sañ-sañu maanaam qualifié maanaam feeyi maintenant moom ci li mu jàpp mooy dafa li li li liñ ko wan moom jàpp na ni li ñuy wax coup et blessure volontaire rek mooy li ci am te ci loolu moo ci la sukkandiku ngir téye Khaliphone Sall waaye ñun ñi xam ne ñooy toppee ak élément de preuve yu ñu am au-delà effectivement donc du règlement du parquet la loi nous donne la faculté en fait d'initier d'autres procédures parce qu'en droit il faut savoir que tout ce qui n'est pas interdit est permis et la loi nous donne la faculté en fait d'initier d'autres procédures et d'ailleurs nous n'avons pas tardé à le faire nous n'avons pas barguigné des juges au fin effectivement de se prononcer sur l'agression sexuelle et éventuellement sur effectivement donc, la réalité de la séquestration de notre effectivement client. Parallèlement, nous avons vu que le sieur effectivement Khalifa Sall a effectivement utilisé l'image de la dame Adja Diaw au fait de la diffamer, de jeter l'anathème effectivement donc sur elle, parce qu'elle aurait été présentée comme étant une, euh, donc une prostituée, une lesbienne. Ça, nous avons effectivement que c'est une atteinte grave aux dispositions de la loi 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Et nous entendons, et dans les jours à venir, en fait, donc, euh, euh faire une citation directe auprès du tribunal de grande instance hors classe d'art. Parce que nous sommes dans un état de droit et seen notre conviction mi ngi doon waxaan yooyu nag incha allah bun àggee ba ca biir euh, maanaam euh, procès ba hmm. loolu lépp dañ ko mën a leeral incha allah donc jëruñu ci man may bañ a jàdd yoon hmm. man je suis respectueux des lois et règlements de cette république en fait donc moo tax du ma mën a dugg ci loolu lu ma yoon tere li may yem mooy li xam ne texte yi permettre na fii ma taxaw ak yow di wax ak yéen hmm. li ñuy wax l' article 26 tiré 2 de notre règlement intérieur moo ma may sañ-sañ ginnaaw bu ñu jugee ci ab audience journaliste yi interpellé ma ma mën leen a jox xibaar ngir ñu mën a informer l' loolu c'est très important nit ñi di ko xam mhm. voilà. d'accord avant ñu lay bay rek euh, yaa ngi doon wax que ni euh, li nga xamante ne nii moo di mbir mi dafa am lu ci rek luy ñëw luy ñëw si soo dañoo bëgg a nëpp nëppal mbir mi par rapport waxoon waaw mais dès l' que ni tribunal maanaam non comme waaw mais loolu moo sabab ñu man mën a dem saisir le doyen des juges pour l' agression sexuelle moo nu yóbbu également ñu saisir le juge en fait du tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour statuer effectivement donc sur la violation de la loi de et d' ailleurs c' est conforme à la loi. merci ah, benn bokk yaakaar laa la wax mu ñu ngi foofu ñu xamante ne ñoo téye fii Californie ñu ngi foofu. parce que munoo munoo jiiñ nit ki viol Samy wax bu egg dofaa ko moom li ma wax leer na waa benn bokk yaakaar xam na li may wax parce que man je ne sais pas comprendre d'abord nga jël doomu jàmbur jëlee ko Europe indi ko fii nga ne da nga koy jox passeport diplomatique Macky Sall bu buggee jox passeport diplomatique eh, kii Californie matin au soir mu jox ko nañu waxante dégg. déglu ma jotul dara. Ah, dara la jotul gis nga déglu ma leen déglu leen ma. xam nga man munu ma comprendre man. kenn du ma saaga ndey pendant ay weer ngay saag sama ndey man ma ñëwaat ma ne damaa jubóo ak yow est-ce que loolu jubóo boobu c'est vrai nañu wante dëgg quand même nañu bàyyi di laame-laame wax ji dama ne pièce moo fa nekk man maa ko wax te zela asim hmm. dama ko wax Kaliphone bu may dégg bu ko yàlla mayee jàmm ba mu génne fii na génne ci Macky Sall li may wax leer na parce que mënu mu comprendre loolu nga saag doomu aadama ay weer moom mu ñëwaat mu ne dafa jubóo ak yow jékki-jékki mu ne la kaay Afrique dinaa la jox passeport bi fu la fu la neex nga dem ba nit ñi tuumal Macky ñu ne dañoo bloqué kalifon ñun nëpp wax nañ ko fii réseau soso ñu ne dañoo bloqué Californie Californie génne ci kanam ñëpp mu génne ay passeport am ba muy woote agence di jënd billet bu ñu jox ko rendez-vous mardi mais Californie bu naree jënd billet kay dem mardi kay bu dee loolu dëgg la papier bi c'est lan moo ko fekkee fi boo problème viol bi ñëw fekkee ko fi nañu waxante dëgg mais moom moo ñu leeral ni ay dama ne chantier bàyyi ko fii xam nga man dama lay jàppale mais ci kaw dëgg dama la ne man dama lay jàppale kon Kaliphone waxul woon dëgg sama dama ne sembi damaa bëgg nga déglu ma man du ñëw taxaw ci média moo ma indi dama ñëw pour soutenir ko en tant que doom sénégalais la citoyen la te damaa jàpp ne victime la ki ñuy ne victime kooku du victime Kaliphone mooy victime parce que Kaliphone président moo ko jël Europe indi ko fii tey lii dal ko lan la war a def même bu dee waxu ci man waxuma président jàppale Kaliphone waxuma loolu mais Kaliphone yow man maa la indi pour ma jox la passeport am sa passeport ñibbil parce que même bu dee du problème bi mais Kaliphone mu ngi Sénégal mu ngi en risque parce que waa Sonko bu ñu ko amoon ci mbedd bi dañu koy rey Colobane fii Colobane fii du du bloqué nañu ko fii ñu bugg koo dóor ak otam Colobane fii ci marché Maguette bi kan moo kan moo ko gisul mais nañu waxante dëgg Kaliphone fu mu nekk nii du Adja Caaray aw ma Adja Caaray nan du waa Sonko waa Bennoo Bokk Yaakaar ñoo ko téye wax day leer nag. lan moo tax mu tudd ci Gabriel Kane. Gabriel Kane man loolu ñoom la concerné. Mhm. moi je ne connais même pas qui est Gabriel Kane parce que man. sa sa liggéey sa liggéey la dama la ne man damaa bokku benn parti. ku ma gis tey xam nga ne man PDS laa gëm ma leneen. man je suis de Karim. kon tey gi ni Gabriel ak euh, Kalifon ñoom ñoo xam parce que man gis naa ne. Kalifon seer seeram moo nekk Gabriel parce que gis naa ñu ngi fréquenté du benna du ñaar du bokkul live ñoom ñaar. di toog kër ñoom euh, Gabriel oubien bureau Gabriel di def live kon tey ni problème Adja Thiaré bu ko indee problème seen diggante loolu ñoom la concerne man sama yoon na ko ci mais quant sama calcul bopp ak li ma gis fii Kaliphone fu mu tëdd fii waa Benno moo ko teg fii du keneen nañ wax mu jeex. sëñ bi fàttali nañu tur avocat du commune de Neteboulou loolu sama surno la ci internet mais Mohamed Sidibé laa tudd. merci Mohamed Sidibé laa tudd na leer. waa benn Bokk Yaakaar je l'assume. Ah. yéen ñoo téye fii Khalifa maa wax. mais comme que tu es de Karim est ce que bëgg ngeen amnistie tamit loolu tamit c'est bon là. Mhm. parti bu ne dafa am sart. comprendre nga ñun suñu parti dafa am sart. Mhm. suñu sart mooy lan. Mhm. lépp lu xew dañuy déglu suñu kilifa muy suñu secretaire général national muy maître Abdoulaye waat ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér. mais tey jii nii man à ma personne man. waxuma keneen de. nit ku ne lu la concerné ngay wax man bu ma amee amnistie ma jël. bu ma amee atte lu leer ma jël ndaxte Karim dafa am ay doom am famille fii nii Sénégal fii am na fi ay nawle am na fi ay mbokk te ñoom ñu dem Doha di ko seeti mhm. kon bu ñu amee ambition ñu jël te Karim Wade ñu ngi interpellé état bi ñu si mun a gaawee def bu ñu libéré Karim mu ñëw nañ ko libéré mu ñëw lool la ñu wax parce que Karim bu fi nekk opposant amatu fii bu dul